sama ren indi nga ci man sama reen de dinga ci mën eh. reen doon nga yaay sama reen jekk masha Allah teg xool lumière nationale c'est toi ma su ma la gisee damay bay way hymne national yaay sama wéeruwaay di sama gënawaay sama Ini gak cuman end Number one Ini gak cuman fan DC xam naa dina ci indi ay leeral ñëw rejoindre ci li nga xamante ne moo di plateau toi-même tu

sow faral di fi toog àjjuma dafa am euh, décès moo tax fu mu toll nii mun ñu ko gis mu nga dem foofu ca Pire moom nag euh, dafa ñàkk ki nga xamante ne di jaay la ci moom ñu ngi koy jaale euh, waa këram yëpp di ko jaale yi tamit ay mbokkam alaaji saale bi yi tamit ni ki men benn dëkkandoo mu wàññeeku ñu ngi ko koy jaale moom it foofu la dem teewee li nga xamante ne mooy boobule boobule naqar bi nga xamante ne boobule tiis sax lañ ko mën a tuddee xew na fa waaye ba tey comme niñ koy defee rek ah nekk li nga xamante ne mooy seen émission toi dañu am mbégte ak plaisir di leen ko présenter je m'en vais nak New York ñi nga xamante ne ñoo tok fi tey ci plateau bi ñu am ci ñaari ndana ni ñu invité ku ci melni euh, Ndaté job nek journaliste fele ci RFM mom nak am prix bi nga xamante ne da koo daal rek gagner hein, ah sigil lepp li nga xamante ne ñooy liggéey ci walum euh, bobu muy walum journalisme di xibar way itamit dalal ki nga xamante modi Adama Fall ngir ñu waxtaanee jafé jafé yi nga xamante ne seetlu nañ ko fofu nonu ci APR Koura la belle et ravissante namoon la

fu mu jóge nag yàlla na ko fu mu dem yàlla na ko gënal fi nga xamante ni fii la jógee mm-hmm. lu ñuy wax rek lu nax seen sax lexatal mawti bakkan bu ñam dund di nga ñam de ci foofu porox ndorl boobu tamit laay wàcc jaale waale aussi ki nga xamante mooy Alaaji Sall bii nga Njaay Gambe nii mi nga xamante ni bii nii moom tamit euh, dafa am décès mm-hmm. euh, ci koñom boobu noonu ça prouve encore une fois que ni àddina nii la rek am na yenn yoo xamante ni bii nii kenn xamul ah encore une fois di leen jaale di leen wax ni àddina nii la merci beaucoup ki nga xamante ne nag Abdoulaye Ndiaye dafa dem takk ji micro il va nous rejoindre sur le plateau <laughs> Mom nak mo dalal ki nga xamantene ne moo Adama Fall Adama ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau toi-même tu sais je bleu merci beaucoup et ça fait un plaisir ñëw fi. Mhm. di partager plateau bi ci yéen mais balaa ñuy tàmbali dañuy présenter sincèrement suñuy condoléances. Mhm. à Mansour qui est un ami. Mhm. Sali Bigué aussi ñu leen di si ñu ngi leen di jaalee ñi nga xam di ñaanal yalla ñi nga xam ne ñoom ñoo wàññeeku yalla xaré len aljana di sant yalla de ñëw fi et puis di remercier c'est un ami. Mbaye. et Maïmouna ñu ngi di nuyu di len ziar bu baax. d'accord merci beaucoup la belle et ravissante Maimouna

wàññeeku na di ko ñaanal rek fi mu jógee fi mu dem jógal gënal ko foofu fi nga xam ne foofu la jógee di jaale également suñu papa euh, Sala Bigué moom tamit mi nga xam ne dëkkandoom donc euh, wàññeeku na mhm. fi nga xam ne foofu la foofu la nekk mhm. donc euh, comme ni nga ko waxee rek tey ñu ngi ni toog wala di fas yéene jàkkaarloog suñu invité rek fas yéene faram fàccee li nga xam ne mooy actualité merci beaucoup Maimouna Ndaté waaw c'est un plaisir merci beaucoup plaisir di euh, nuyu ñëpp ñi nga xam ni ñoom lañu bokkal plateau bi di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di jaal Mansour Mansour Sow Mansour sama rakk la ñoo bokk dëkk Pire euh, donc muy un confrère mhm. euh, kon tiis bu dalee ci kawam ci ñun ñëpp la dal mhm. di ñaan rek nijaayam jooju nga xam ni moom moo fi jugee yàlla xare ko àjjana mhm. te fa mu jëm gënal ko fi mu jugee di nuyu encore une fois ñëpp ñi nga xamni ñom la laa plateau bi di euh, xalaat ni ak yaakaar ni xëy peut-être lepp li ñu war a mën a dina ci génn ci biir plateau bi inshallah inshallah merci beaucoup hein, ah Ndati Diop tay moom nak moy invité ki nga xamante ne mooy Infomédia di Maimouna mais bala ñuy xus ci lolu damay laaj ki nga xamantene moy suñu invité musique l'homme DC l'homme na nga def no tudd. ma ngi fi. mais l'homme DC moy moy lan ban ba ben, l'homme comme nitan hein.

waxtaanee tay mbirum ñàng beex ñangalé bi mom lañu tijjee li nga xamante ne di actualité du net hein, fofu té lycée Blaise Diagne euh, jangalé kat professeur euh, bi nga xamante ak élève ci bopam moko agressé. kon euh, li ko waxé léna professeur élève bi nga xamné kon daal dina rek agressé professeuram jamono ji rek ñu weesu ñu ngi doon wax ka bi nga xamné xewon na fi nga xamné moy Boukot Bukot ci Jembereng benn professeur d'éducation physique nak foofu it euh, benn élève moo ko attaqué woon rek tey jii mi ngi xewee rek fi nga xamné moy lycée Blaise Diagne mais nous rappelons que euh, élève bi ak professeur bi ñi ngi ci euh, mam euh, lycée wala collège mam Thierno Biray Mbacké foofu lañuy jàngé mais dañuy ñëw ci nga xamné moy lycée Blaise Diagne rek ngir defal fa ngir amal fa seen cours de PS donc ci nonu kon la élève bi daal di attaqué ki nga xamné moy professeur ba rek ba daal di toj bët ba buñ ko mëne wax non fi ni nak nii nag ngi ca hôpital ngir ñu amal ko ay soins.

té dara du ci xëpp mhm. té des fois gis nañ fi des fois dañ ñuy sànni xeer rek tout le temps nan ñun ñooy def ñaawté fi ñun ñoy def viol yi ñun ñoy def agression yi envers les élèves aujourd'hui bal bi dafa tourner suñu kaw mhm. li ñuy demander moy sincèrement euh, état bi jël ay responsabilités face à cette situation là parce que mënuñu nangu un enseignant bu ñu agressé ci biir école mhm. mënuñu ko nangu parce que ñu ngi dund toutes sortes de brimades présentement té pourtant su nekkoon élèves yi lañ ko def tay dégg nañ sénégalais yëpp def tolé taxaw ni ñun amuñu duñu sommes pas des responsables donc il faut du nous situation parce que aussi il faut qu'on arrête cette situation là il faut que nous disions que nous enseignants nous, nous nous tout le temps Nous nous nous blesser parce que donc ça veut dire que notre vie est en danger présentement dans les salles de classe c'est important que nous ñi xam ko a des difficultés que nous nous sommes les parents pauvres de ce pays-là. Nous ne sommes pas protégés. Nous ne sommes pas protégés par les parents d'élèves. Nous ne sommes pas protégés par peut-être euh, la République. Mais moment il faut qu'on tape sur la table et qu'on dise il faut que ça cesse. D'accord. Merci beaucoup Adama Abdoulaye. waaw euh, li mu wax sànq rek waaye xel dafay téye ba euh, par exemple ci jamono mon ñu toll euh, école loolu di fa am te bu njëkk jàngalekat moo daan am fit ci kaw élève bi di mais damay jàpp ne dañu raté quelque part bi nga xamante ni au départ dañu fi jële yooyu yëpp nga xam ne bu njëkk xale bi da daan am tiit sax daje ki nga xam moom ma di jàngalekatam si mbedd wala ci yenn lieu de rencontre bu ñu ba tey ba mu boobu mooy que tey dañuy def ay faux pas yu bëri ci suñu système éducatif bi nga xamante ni xale biy jàng daanaka boo euh, mujjul jàngalekat bi moo koy gën a ragal que moom alors ko du wutoon a demee noonu c'était ça devait être le contraire pour que mu mën a dispenser parce que ki lay jàngal pour nga am xam-xam il faut nga ragal ko il faut nga am cër boo ko jox

waru waroo tëba tëb dóor ko waaye comme dóor am na rek duñ ko rafetlu te képp ku la mën di jàngal cër nga ko war a jox waaye nañu xoolaat lan moo nekk ci suuf ak lan moo tax mu dóor ko loolu lépp ay question la yu ñu war a posé wu ci ci ci jàngalekat bi waa Léna man de euh, dama ko bon c'est écœurant hein, comme ni ñu ko waxee euh, nekk na loo xamante ne yéeme na comme mën naa ne sax auparavant élèves yi dañu ragaloon seen professeurs yi mais bu ñu demee ba professeurs yi ba élèves yi ñemee professeurs yi di leen songu y a un problème là il y a un problème parce que élèves yi tamit am na ñàkk yar bu nekk ci école yi dañuy jël ay surnom sax di ko tuddee seen professeurs yi te loolu ma je trouve ça anormal am professeur yi nuñ ñu leen di euh, torturer ci salle de classe yi duñu ñu mën a amati sax envie yeggali seen cours et loolu euh, je pense que war nañ cee wax bu baax a baax a baax mm-hmm. ndax loolu noonu yabeel boobu mooy indi waral li tey jii élève di ñëw di agressé ki nga xamante ne moo koy jàngal. Mbaye est-ce que éducation bi dañ ko saytuwaat bu baax ci biir kër yi tax ñuy dem ci école yi. ah mais bien sûr c'est le foofu mooy premier volet bi waaye mais damay rejoindre Adama ah di wax ni euh, élève warut a professeur ki lay jox xam-xam moom honnêtement waroo ko dóor da nga ko war a respecté.

et nag c'est à tous les niveaux remarque bu ñu def la xale des fois suñu demee école même ça l'agression elle peut être physique hein qu'elle peut être aussi verbale da ngay gis nit koo xamante mais en terme de tenue xale buy jàngi def criss cross man à maintes reprises su may génne gis xale yoo xam dafa wàccu tubéy gàddu sac damay ralentir ba ci moom ne ko booy da ngay jàngi mu ne ah, ma ne ko mais ba ni, jàngi nii jël sa tubéy nga yéegal ko mais looy dem di jàng ji école di wàcc criss cross am na yenn wateef yoo xamante ne bi sa xale waru koo def sa dem école temple du savoir la ñoo da ngay na yu bëree bëri war nga ko mën def loolu nag sa xel honnêtement da nga ko war a jox cër ki la jàngal ba nga a bind sa tur mën a lire sa tur koo tari mën a jaamu yàlla kooku mënoo koo fay kooku waru ko dóor am na solo mbay ndafe waaw man damay rejoindre rek li nga xam ni moom la ñu wax euh, si euh, plateau bi mhm. Parce que moi, je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça. Euh, c'est un problème de société. Un problème sociétal. Ce ne nous euh, euh, éducation de base ou parce que il faut refonder notre société parce que les problèmes de société qui xale bi nga ne école l'école. dans les textes ñu dem ba le châtiment corporel est interdit Enseignant, il nous interdire leen ko amatuñu droit yëkkati seen loxo di dóor kon bu élève moom amee fitu yëkkati loxoom di dóor enseignant y a quelque chose il y a problème et en plus monsieur Fall wax na ko sànq il faut que ñu joxaat enseignant bi jàngalekat bi li nga xam ni moom mooy valeur am responsabilité bi ak kilifteef bi nga xam ni la war a am

sama xalaat moo nekk comme li ngeen décider léegi nii li ñu jot a wax fii léegi mm-hmm. ki lay jox xam-xam waroo ko dóor war nga ko ormal jox ko cër war nga ko jox cër quoi mm-hmm. Maymuna mm-hmm. Eh, yaakaar naa ne leena bu ñu tollee ba jamono ñuy gis ay élèves comme ko ci plateau bi rek di dóor sen professeur wala seen maître yaakaar naa ne war nañ tok ñun ñëpp société autour d'une table pour wax lan fan la yëf yi ak fan lay dem ndax yaakaar naa ni Euh, moins d'une semaine ñu nemmeeku ci de cas te du yam fii. ëpp na ko du yam fii dina dina dina demaat ba fukk gën a sori. donc est-ce que tey jii jotul ñi nga xam ne ñoo ŋànk éducation bi euh, jàng bi ak jàngale bi ñu toog xoolaat euh, professeurs yi gis nañ leen seeni grève revendication yi ñuy def le plus souvent lan la accord yi ñu signé ak gouvernement nañ ko respecté. Mm. leneen ak leneen mais est-ce que cas bi yaakaaruma ni que bokk na ci accord yi nga xam ne signé nañ ko ak gouvernement bi yaakaar naa ni tey jii war nañu. toogaat xool réfléchir ci phénomène fléau sax laay wax ndax fléau mi ngi gën di dem kanam jot na ñu ñu ñu ñu xool yan fondement wala yan base wala yan lañu mën a teg daal exactement pour mën a xool ci bu baax a baax ci fléau bu mel nii tey yaakaar naa ni am na benn jamono gisoon nañ fi benn parent d'élève ndax maître bi dafa dóoroon doomam mu dem accueilli ko ci classe bi indil ko histoire foofu ndax élèves yi bu ñuy gis loolu du leen may fit tuuti du leen encouragé tuuti pour ñu mën a de ah man tamit tey am na droit attaqué sama professeur wala am na droit attaqué sama sama sama maître dara duma ci fekk yaakaar naa ni ñun bu ñuy jàng dañu doon dóor mm-hmm. te yooyu fit yooyu yëpp yi xale yi am léegi ñun amuñu ko woon xalaatoo ko sax boo nga doon gis sa professeur wala sa maître da ngay daw xalaatoo sax dajeeg moom ci mbedd donc tey xale yi dañoo dem ba toom tolloog seen professeur taxawaay tolloog ñoom doole wala ñu ëpp leen doole ku leen wax benn ñu ne leen fukk donc yaakaar naa ne war nañu xoolaat daal mbir mi ni mel ndax kanam la jëm ñu xolaat bu baax li nga xamante ne moo di éducation yi ah éducation yi nag bu ñu ko waxee mu nekk ci volet yëpp ci biir kër gi ndaxte laataa ngay jàngi di nga am yoo xamante ne foofu lañ koy eh, njëkk a nemmeekoo ba ba tamit eh, ndongo yi am na ci élèves yoo xamante ne dañoo doy waar ñu ñeme leen sax yombul ndax comportement yu ñuy am wala li nga xamante ne moom la ñuy ci biir école bi wala li nga xamante tamit moom lañuy dégager ñu gën ci baye xel bu baax ñi nga xamante nak euh, comme niñ ko waxé rek ñom ñoy ñuy jox xam-xam nak euh, président docteur médecin ñepp ci professeur lañ jaar hmm. ñi ci mel non nak tay ñi nga xamante ñoy yor les grandes instances de décision ñepp ci loxo professeur yi lañu ñu jaar kon nañu baye xel bu baax bobu le corps fi ci société bi dañuy xuus rek dugg ci li nga xamante ne di actualité politique et sociale ñu sur le plateau sociale tey nak ñu nar waxtane li nga xamantene moy jafé jafé jafe nekk ci biir APR parti Macky Sall lañu wax titre bi le parti de Macky Sall au fond du trou même na <laughs> euh, balaa ñuy ñëw ci le parti de Macky Sall au fond du trou sax ñu ñëw aborder toute actualité rek ndax jangale kat nga ya jité serment euh, donc euh, grève G 7 bi bobu légui ñu ngi ciy wax yow nak nga ndax ay jamono bu ngeen xamné ne yéen fété ngi de l'autre côté yéen a ngi bëggoon tamit ñu daal Euh, gëstu rek enseignant yi tey yéen a ngi ci APR naka nga gisee grève bi. grève bi ça a été une réussite dañ koy accepté mais euh, ñun duñu taxaw ne enseignants yi amuñu droit grève ce que nous demandons mooy accord yi nga xam ne état bi signé na ko te def na ci ay jéego yu mat solo nag yu am solo pour kii ko nañu fexe rek nu syndicats yi toogee g ak état bi ñu waxtaan. pour trouver des solutions pour le pour sénégalaise parce qu'il y a ne loolu solo. que des grèves tout le temps quoi parce que du solution quoi mais la la grève a été une réussite totale. Mhm. et nous félicitons les syndicats parce qu'ils ont droit à grève. Mhm. Euh, c'est-à-dire dafa am dafa am dafa points qui ont été moom entre les enseignants et les syndicats après grève bi ba nga une réussite totale da ngeen une li nga xamante ba grève ba ay dañ leen non non Il y avait une fois parce que dañu grève ba pare enseignants yi dañu grève ba pare G7 dafa grève ba pare def mobilisation mhm. donc suñu defee mobilisation on a vu marche bu ça a été une réussite mhm. et du marché bi du liée avec rek lañ mhm. moi je ne me positionne pas comme syndicaliste parce que euh, je ne suis pas un syndicaliste mais sous syndicaliste faits marche def grève mu réussir dañ koy respecter parce que signal bu ñu jox état bi signal fort. mais bien sûr c'est un signal très fort pour l'État pour montrer que attention il y a un problème il faut que nous nous et heureusement lors du conseil des ministres d'hier le président a demandé aux ministres concernés de s'asseoir autour d'une table et de discuter. pour mais trouver des solutions mais ministres nga été ne ñoo yor ku mais du am après suivi njiitu réew mi yàgg na laaj à chaque fois na ministre yi gëstu euh, ci li nga xam mom moom la syndicaliste yi bëgg wala li ñi revendiquer mais après du am suivi. non am nay jéego yu bari yu ci def par rapport aux, aux demandes et doléances des enseignants mais jéego yi du lepp lañ def parce que accord yi dañ ko signé dañu yaakaaroon état bi lepp lay def mais état bi deful lepp il ci ay jéego nag yu mu def yu par rapport à la dette yi nga xam état amel ko enseignants état bi fay na ci lu 87 milliards c'est énorme ci ci ci diggante 2018 ak 2019 euh, bi en deux ans on a payé 87 milliards de dette de rappel c'est important pour les actes d'intégration pour les actes yi nga xam ne mooy problème carrière enseignants yi état état presque 100 et quelques mille actes pour ay pour ay enseignants c'est des efforts qui état bi di mm. mais dafa doyul parce que liñuy laaj mo bari. dafa am ay points yoo xamante ne point ah, dafa may yi lu mu bari bari yéen ko signé woon ak ñom donc il faut que ngeen. waaw dafa am lo xamanteni nak dañ ko hérité won dañ ko don dafa am accord yo xamanteni dañ ko don ci nguur gi ci nguur gi fi joggé mhm. puisque dañ ko don dañ koy assumer même su nekké liñu don ci yenn accord yi mënul nekk parce que mënul nekk le système de rémunération c'est une difficulté il faut qu'on ose le dire ñom syndicat yi xam nañ ne day jafé pour état bi def ko mais pourtant mi ngi ci point de revendication yi parce que dañ ko doon. mais da looy gis rek dañuy wax discours de vérité il faut que ñu tok ñu waxtaan ñu xolante les les li kat li mën def ñu ñu def ko lu ñu mënul def ñu ne mënuñu ko def. parce que lool moy suñu responsabilité. merci beaucoup Adama voilà man sur ce point là bëggoon a wax lan li ñu mën def ñu def ko li ñu mënta def ñu xol ñu waxtane ko mais moi je veux je veux je veux qu'on revienne un peu sur les accords que les enseignants ont signé avec le gouvernement. Si le gouvernement, au début, avait tenu un langage clair aux enseignants, mm. leur faisant savoir que li monunek, li mais pourquoi le gouvernement laisse toujours pourrir la situation à tel point que nous exifions nga nous néna la dafa am dafa am dafa am difficulté point moi le régime indemnitaire le dysfonctionnement ak inégalité bi am ci fonction publique parce que dañu gis ni l'enseignant bi day am bac plus 7 salaire est mooy gën a ce ki nga xam grand cadre la loolu ci point revendication pour nous régler ce dysfonctionnement nous donnons un point le président dafa defee dafa envoyé benn cabinet ñu def étude sur la question mais c'est beaucoup de milliards par an c'est énormément de sous dafa def dafa jot loolu fekk na signé nañ ko dañ ko doon ba mu def enquête bi jot ñu jox rapport bi mu il a étudié le rapport mais gis na ni lii day am difficulté. moo tax ma ne la nañu toog ñu waxtaan état ne diis na mais mën naa def lii même su nekkee donte dañ ko signé woon nag auparavant mais nañu toogaat parce que école sénégalaise dañu war a dépasser étape boo xamante ni dañu war a xëccoo xiiroo ak ngaayoo ci mbirum payoor. Mm-hmm. il faut ñu weesu ko. c'est vrai que am na inégalité dans le traitement salarial mais il faut ñu dépasser étape bu payoor xëccoo mbirum mbirum payoor. c'est-à-dire nous wax ci les points essentiels comment nous devons faire pour que le niveau élève au Sénégal di pour que taux d'échec au niveau des bacs et des examens yek c'est-à-dire voici des questions importantes yo xamanteni dafa dépasser mais loolu pour ñu sécuriser ki nga xamanteni ne moo yor moo yor ko mm-hmm. résultat da daan am je suis la quatrième génération de ma famille d'enseignants mm-hmm. résultat da daan am té parce que suñu jamono ñun ñoo daan grève ah n'est-ce pas mbay mm-hmm. enseignants yi daan grève ñun ñoo daan grève ñun ñoo daan grève di génn di toj bus di def nangam kat daan doon grève bul bee tourné kat commencé grève xam lu tax non non non non xam lu tax dafa am beneen type d' enseignant bu dugg ci biir système bi enseignant bi dafa ñëw am diplôme yu mag nekk un grand intellectuel gis di ak par exemple damay bokk ak nit université man ma dem nekk kat kooku nekk cadre quelque part dans la fonction publique ñu gis dysfonctionnement bi dans le traitement salarial. du dëgg loolu amuñu raison. mais je suis d'accord que am dysfonctionnement mais dysfonctionnement boobu suñ ko daree réglé c'est toute la fonction publique moo a am problème mais suñu biir dysfonctionnement boobu dafa am ñoo xamante ne nag ci biir syndicat yi d'accord ñu parce que ci dysfonctionnement dafa am ñoo xamante ni ñu ngi duggee enseignement ak BFEM am ñoo xamante ni ñu ngi duggee enseignement ak BEF e ak ak ak BAC rek suñu naree régler les inégalités yi suñu doyen yi nga xam ne BFEM la ñu duggee enseignant te mu def leen an dañ leen di léser les instituteurs par exemple ni nga xamni jangale kat ci jangale bi befem lañ duggé dañ leen xaw a léser donc il faut état bi accepter tok autour d'une table. mais lolou est-ce que les élèves ñom duñu comprendre que ñeneen ñi dañ leen ëpp diplôme gën leen yag université. non non non xam nga c'est vrai que dañ leen ëpp diplôme mais dans la fonction publique dañuy waxtaan dans la fonction publique il y a ce qu'on appelle le corps des enseignants. Mm-hmm. il y a le corps des médecins. donc le traitement salarial suñ ko du bok parce que enseignant bi euh, suñu démé ci biir suñuy liggéey suñuy xey mm-hmm. ñun ñëpp suñuy xëyandoo l'enseignant est lésé parce que ñeneen ñi ñoo leen ëpp indemnité mais suñu demee retraite l'enseignant est bien nanti est très bien nanti sax d'ailleurs merci beaucoup Adama Fall waaye éducation bi nga xamante dafa excellente en mbay fonction publique xaw am jafe-jafe est-ce que tanewul fonction publique bu dund taxaw éducation bu sooxee xam nga su ma déggee Adama damay sax jaaxle parce que suñu dañu dañu dañoo hérité ci lenn mais bañ koy hérité d'accord na, waaye ñoom ñoo ñëw diggee pour bëgg a falu en 2012 dégg nga li nga xamante ne moom la fi digg bi nga xamante ne moom la président Macky Sall euh, defoon ci enseignants yi ci régime bii laa de 2012 à 2020 enseignants chaque jour que Dieu fait ñu ngi grève moo xam vacataires yi moo xam li nga gis sax ñuy def nañ grève de la faim système éducation bi daal honnêtement Adama pour wax dëgg moom dafa sooxee léeg li nga xamante ne kañ moom moo ci ne mooy jéem a xool naka la ñu et le président de la République a trouvé nag les formules

enseignants yi waxtaan ak ñoom ne kat man kat dinaa mën léegi li ba du ñu tourmenté xale yi nga xam te ñoom ñoo war a dugg au mois d' mais loolu dafa moom dafa moom dafa ko lajje complètement léegi dem na ba président de la xanaa moom moo koy jéem a ba ci conseil des

ci jàng bi sànq da nga wax ne ci wàllum euh, dysfonctionnement bi wala boog euh, wàllum lu soxal diplôme yi man dama jàpp ne euh, foofu tey jii jàngalekat yi am na ñu bëri ñoo xam ne dañoo am ay bac plus 5 bac plus 7 sax laay wax. mais li leen dugal si jàng jàngale mooy ñàkk pexe. ah ñu ci bëri am na ñoo xam ne parce que tey Sénégal deux produits la am fii Sénégal deux produits la ñu am muy jàngale ak armée ku ci jaaxle. ne damay dem armée ku ci jaxlé ne damay jàngale ji tant que lool lool réglé wuñ ko non situation ñi dugg ci jàngale ndax par vocation lañ ci duggé ndax volonté mo lañ ci duggal ngir ñu engager au service euh, servir leur peuple parce que jàngale euh, euh, engagement la boo xam ne sacerdoce la jaamu yalla la fajj ak jàngale jaamu yalla la ñu ci bari na ñi ci dugg dañ ci wara dugg ngir volonté engagement mais ñu ci bëri ñi ngi jàngalé yor seen bac plus 7 bi nga wax sank pour ngeen rek rek euh, affaire yi ngeen tollale ko ba mu yem du yom parce que lañ leen ci dugal caaxaan la da am ñoom da jàng yeneen faculté yo xam ne mooy seen mbir mais bu ñu devant l'élève lolu nekkul seen bop seen bop mooy ñom liñ ñu wona woon nekk mais ñak pexé mo leen ci duggal tant que nak loolu li may wax sank rek la situation bop enseignement euh, mbirum enseigne enseignement en tant que tel Dire que ay année problème bobu day poser waat à chaque fois que que jëfee sa si li may daanale mooy ci walum lu soxol euh, syndicat yi man dama japp ne aussi ñom dañoo wara fexé nek ñoo xam dañu wara service sen pop parce que tamit amna ñoo xam tay ji li ñuy wax sank ci walum grève yi année scolaire rek lañuy ñuy grève mais war nañu aussi ñom ñu xol ci avenir xalé yi te xam jang bobu engagement la jangale bi sacerdoce la te xam ne li ñuy laaj leer na lii li ñuy laaj mënuñ ko état bi xam li muy diggee mënu ko tant que reluñu loolu dañuy tok chaque jour ñu wax négociation tok nañ fi téeméeri table de négociation c'est voué à l'échec Adam oui euh, c'est-à-dire euh, du ma d'accord ak mom fi mu waxé né gaay dañuy dugg ci éducation parce que gëmuñu ko mhm. je n'ose pas dire ça pour man gars yi suñ duggee ci métier bi c'est parce que gëm nañ ko parce que aussi <laughs> su ma toogee fii aussi dama ci toogal jàngalekat yi quoi qu'on puisse dire gars yi dañ dugg ci métier bi parce que gëm nañ ko mais comme comme on dit l'engagement dans le système éducatif c'est une conviction parce que nous l'avons quoi dañ ko gëm dañu bëgg métier bi soo ko bëgguloon sax ba ngay door soo demee ba ci biir di nga dem ba bëgg ko parce que da dem ba bëgg xale yi ba am yërmande ak ci ñoom doog a dugg embrasser ce enseignant bi nga xam ne nag leneen moo ko tax dugg ci système bi day ñëw régler problème am def fa deux ans trois ans dem yoonam n'est-ce pas mais am na ñoo xamante ni ba duggee ci système ba léegi ñu ngi fii fi maintenant par rapport a l'état du Sénégal nee naa la état du Sénégal li may wax système monitoring bi premier ministre moo ko géré woon d'accord naa mais les syndicats duñ déposer préavis de grève pendant les vacances veille ouverture la déposer préavis de grève pour nous pour pour la table de négociation parce que s'il n'y a pas de préavis de grève table de négociation warul ne am. c'est une stratégie. n'est-ce pas. Nous mm-hmm. déposer mouk préavis de grève en juillet. ils attendent jusqu'en octobre nous déposer préavis de grève obligatoirement c'est-à-dire dañuy nous nguur pour nous gi négocier suñ doon déposé préavis de grève c'est vrai ñu jël le devant mo doon gën parce que am nañ 3 mois nak ñun ñoy corps bo xamanteni dinañ am 3 mois 3 mois kay amatu léegi ci jang bi quantum horaire bi yàq nako dina xawa a mais c'est-à-dire du du ñun enseignant ñoy ñoo yàq horaire bi <laughs> c'est-à-dire xam nga dañ nekk dañ nek ci réew bo xamanteni des fois nga dem nga dem am dëkk boo xamante ni mois de mai tu es obligé nga fermer les classes parce que xale yi dañuy génn classe bi dem dem dem tool ba yi obligatoirement parce que ñooy jàppale seen i parents mhm. foofu mënoo respecter quantum horaire bi da dem ay dëkk yoo xamante ni euh, mun nga jàng ba examen jot mais di nga am ouverture des classes aussi di nga dem dëkk yoo xamante ni du ñu ubbi octobre. voici des difficultés te yooyu ci Sénégal la am. xam nga gu mbënd bi rek tax na bu doon tijji octobre. mais échec gu mbënd bi rek tax na bu doon tijji octobre je des inondations. Mhm. parce que dafa amoon beneen yeneen facteurs yoo xamante ni dafa nekk dafa bokk suñu biir société. dañu nekk un pays boo xamante ni ñi nekk ci biir intérieur bi ci bëri ay béykat leen te seen yi ñoo leen di jàppale. mënuñu ñëw école te ruujuñu gerte dekkuñu dekkuñu gerte ba pare c'est c'est pas possible su taw bi tawee xale yi génn nañ classe yi dem nañ bay voici des difficultés qui existent donc dañu war a mën a travail système scolaire bi parce que président gis na ko parce que ñu ci bari nag ci biir à l'intérieur ay abri provisoire la c'est vrai que 16000 lañ fi fekkoon tey defar nañ 10000 yi ba mu des 6000 mais suñu réserver les abris provisoires mettre les enfants dans de très bonnes conditions d'apprentissage il y a situation boobu situation mën évoluer mm-hmm. parce qu'il faut qu'on pense aux enfants d'abord avant de penser à nous-mêmes mm-hmm. moi je suis un enseignant Ça ça élève ça donne les dons. sa donne lay dons mm-hmm. parce que sa donne nga yóbbu ci bir école ba diko jangal di nga am yërmande touti ci mom pour mun ko jangal jox jox ci jox ci mom xam-xam parce que xalé bi so des ci mom la ca war amna lo loo ne su choses. duko faté ba man de fàttewu ma ñi ma jàngal élémentaire fàttewu ma leen parce que tey li ma doon ci àdduna ñooñu ñoo tax mais am naa ay élèves yoo xamante ni tey réussir nañ seen vie fu ñu ma gis dañuy gaari seen oto jox ma ñaari la xalaat xalaat élève bi tamit moo tax bokk na ci jox ko ki nga xamante ne amul problème mu dépense amul problème fu mu ressources humaines qualifiées am jàmm dafa nekk en mm. sécurité ba nga xamante ne dina mën a toog jox xale bi li gën ci moom ak anam yi mu gënee ba pare mu def ko mbégte Mhm. loolu tamit bëgg xalé bi crise euh, le parti euh, de Maki au fond du trou euh, ñu proposer loolu comme titre rek ndax d'accord nga jamono ji lu l'APR mm. fonctionne normalement on n'a pas de problème mhm. l'APR va bien très bien très bien donc on verra bien. Là, tout est très bien. je voudrais comprendre tout de la paire va mal. avec les difficultés ah, yoo a la paire du est composée de structures. qui fonctionne normalement. comme ni parti politique yi di fonctionner normalement. kon da bëgg ñu ñëw ko pàcc par pàcc. soo leen ñëw par pàcc. ñëw leen pàcc par pàcc ñu euh, li nga xam ne moom la ñu dàkk bi ñu dàkkee euh, Moustapha Diakhaté donc ci au sein de l'APR ndax dafa créer mouvement. bi ñu dàq parce que dafa créer mouvement. Mm-hmm. mais amul droit créer mouvement ci biir APR. mënul mm-hmm. nekk texte yee ko tere amul droit créer mais texte yi ñoo ko wax texte parti bi ñoo ne. munoo nekk ci biir parti bi créer mouvement boo xamante ne day dem à l'encontre du parti su ko defee rek génne na boppam biir alliance pour la république puisque génne na boppam ci biir alliance pour la république amuñu lu ñu wax ak moom dafa am loo xamante ni ce sont des décisions d'un parti politique décision décision parti politique duñ ko discuter en tant que militant discipliné commentaire sax man Adama Fall du ma ko ci def parce que da taxawaay wala euh, légitimité pour mën a génne. lan moo tere commission amul légitimité. rek. cette commission a cette légitimité parce que le la commission a dafa toog pendant sept mois de constater ben fait une personne qui est dans le parti qui attaque le parti à travers les réseaux sociaux te parti nag courel la man li jang ci formation politique. commission boo xam ne gisul dama ne du ma individualiser les débats dama ne parti politique. courriel. la seen radio, bii seen télé bii ci kuréel ngeen di que li leen naxari ci que kuréel ngeen koy waxee. ku ko génn les réseaux sociaux soo leen toogee ci kuréel dal ci kawam. il faut qu'on accepte que les gens sur le plan politique acceptent de s'asseoir autour des cadres pour pouvoir dire leurs difficultés secrétaire exécutif am na tey lu ko nit naqari ci àdduna soo toogee secrétaire exécutif am nga droit mais su nekkee da ngaa toog nag jël cadre yi nga xam ni fa nga war a waxee nga beddi cadre yooyu yaa moom nag sa page Facebook lu la neex nga wax ko. est-ce que yenn am du ñu fekkee luy xew ci euh, secrétariat exécutif. je ne suis pas mais ndax nit mënul wax dara déglu ñu ko foofu mu génne librement wax li nga xam ne moo ko metti loolu tam mënul nekk. <laughs> tu sais nit ku génn wax li la metti en dehors des cadres tegoo ko fenn sur le plan politique parce que man politique laay wax ak cadre. effectivement parce que Foufou moy waxu kayba, gis nga wax de muy neex dang koy wax ca waxu kayba. mais soko waxul ca waxu kayba, wax ba du safé. te effectivement waxam safewul parce que waxewu ko sa waxu kayba. aujourd'hui aujourd'hui si nous voulons parler de la refondation ce qu'il dit hein, mhm. il veut parler de la restauration de la refondation d'un parti politique parce que pas parti parti bi dafa am difficulté un parti politique ben yon ci élection la la 3e. Ben yon. muy 2009 parti politique bo xamante ne élection yu mu mës def Sénégal yëpp dafa jël paie ba mu des 2009. bokk ak ñun ay coalition merci beaucoup Mbaye. dama xam nga xam nga Adam Adam <laughs> Adam euh, mon ami moi je pense que ni euh bi ngay ñëw xam naa ni consommateur attaaya nga tu ne l'as pas pris ou bien à défaut da nga dama yaakaar ni nous ne mettons pas sur sur sur sur le sur sur le même plateau Bok. non sur le même plateau parce que soo demee ba wax dañ koy war a wax ci waxukaay ba mm-hmm. ah Moustapha Cissé Lo de waxu ko ci waxukaay ba mm-hmm. déedéet yaa xam mbay waxu ko ci waxukaay ba mm-hmm. euh, euh, euh, Youssou Touré waxu ko ci ci waxukaay ba Farba Ngom waxu ko ci waxukaay ba Alioune Badara Cissé waxu ko ci waxukaay ba Malaw Sow Malaw waxu ko ci waxukaay ba en tant d'autres tant d'autres tant d'autres gis nga tey xam nga le constat est là lu ne fàng kenn du ko jéer Nous ne fang kenn du ko jeex aadamaa plateau TMTC ñun ñaa ngi koy seetaan mu ngi défendre la paire c'est tout à fait normal mais amener na yenn yoo xamante ne su fekkente ni ñii dañ la dégg nga di ko wax duñ sax comprendre Mustafa Diakhaté c'est pas la première fois mu génn Alioune Badara Cissé c'est pas la première fois mu génn et j'ai vu noonu aller un peu plus loin en 2012 ñi nga xamante mieux ñoom avec avec ak ak la coalition ak l'APR dekkal ngor 2009 ba 2012 Nous naa si jël kenn koo après il était au palais doon nekk tuddoon Mansour Niass doon ànd ak ki nga xamante ne moom mooy euh, Mimi Touré cadre bobu cercle bobu je pense que xam nga ñi may wax cercle bobu ñu juk lañ wax ne l'APR va mal invité nañ fi ay ñu tok fi ñu ne l'APR va mal mm-hmm. et même mieux euh, au sein même des élections da ngay gis coalition bo xam te ay membres APR dañuy dóorante xeer ma commune Baobab Mermoz Sacré-Cœur Ndeye Binta Gassama ak madame Badiane ñom ñoo bokku ñom ñoo bokku APR mais ni lañ defante ci élection ku nekk wañ sa doole et tant d'autres tant d'autres tant d'autres Kaolack a ngi ni gis nañ Mimi Touré bu mu fa démé ñi bokk APR dañ ko doon dañ ko doon bundu xatal foofu fii nii Grand Yoff rakku rakku Marème Faye Sall ak ki nga xamante ne moom mooy Mimi Touré fa nekkee dañ doon mbëkkante foofu xam nga y a de problèmes au sein de l'APR ça se comprend c'est un petit parti ça se comprend c'est un petit parti Quel est mon mot de c'est un petit parti structuré parti c'est toujours un petit parti parce que il y a qu'une seule personne qui tire la paire vers le sommet et c'est le président de la République euh, le président Macky Sall et mieux ça s'est démontré pendant les élections présidentielles il a fallu la descente de sa la première dame elle fait une bonne politique parce que le Sénégal a a un programme wala programme ci moom ñu ànd ak moom dem voter ko dañoo gis femme bi li muy def mu nekk sénégalaise nag bon teint xam lan la sénégalais bëgg ak sénégalais yi bëgg mu di ko defanteeg ñoom ba mu baax ñun ñu ànd ak moom kan la jëlaale jëlaale Amadou Ba bi nga xam te ne parce daf ko ratissé large ñun ñu ànd ak moom su nekkuloon ñaar ñooñu toon defet bu rëy rëy ngeen di am et ils l'ont compris gis nga tey man je me dis que ni benn mandat bi leen dese mooy desetu mandat bi leen dese na ñoom Moustapha Diakhaté nag loolu la ñu xam te ñeneen it ay dinañ génn li tax Mbaye Ndiaye topp ni rafet lu ma génn bi mm. am na fenn fu ko teg ay ñoom Mame Mbaye Niang gis nga tey seen parti bii ñaan leen yàlla président Macky Sall continuer ko coalition Benno Bokk Yaakaar sax la parce que ci éclatement bu doy waar ngeen jëm loolu seen vision la damay rafetlu mais il faut aussi qu'on respecte l'alliance pour la république aussi quoi n'est-ce pas Mbaye il faut qu'on nous respecte et qu'on respecte l'alliance la république vous rejoignez le président mais li may wax ko parce que damaa bokk ci parti dama dugg ci parti par conviction dama gëm ni politique parce que dama ko jàng aussi quoi politique jàng politique structure à cadre mënuñu tok dima wax ay ay individualité de personne on me dit le parti va mal le parti c'était ce sont les structures qui fonctionnent loloy parti do yay individualité man amna problème ak diw rek le parti va mal non je ne suis pas d'accord parce que formé moi ma sur le plan politique liñ ma formé moy dans un parti l'IT et parti structure là, mouvement des jeunes mouvement des femmes mouvement des enseignants mouvement des nangap, est-ce que structure y a oui ces structures fonctionnent normalement mais n'est nekkee Adama dafa un problème ak avons Sène un terewul le parti fonctionne normalement

et aujourd'hui. Donc nous, ñi dañoo war a pour savoir ni le euh, parti bi. Maymuna un parti politique nous sommes d'accord ci lenn ci ay cadre lañ koy waxee. C'est la structure des des des jeunes ñoo doon tassé, le mouvement la le mouvement féminin des des des. des jeunes non mouvement féminin bi ñoo doon tase di mm-hmm. rencontrer le coordonnateur national. Mm-hmm. dañuy tàccu parce que wane une structure baa ngi mais si ñaari nit un problème seen biir ba andi ko foofu lu ciy problème structure bi ça ce n'est pas un parti politique ce sont des individualités. Et dans notre parti, les structures et les cadres vivent. Le secrétariat exécutif fonctionne normalement, tey Amna Réunion. réunion. Euh, Adama man li ma que laaj rek sànq da nga wax euh, les textes du parti. oui les textes du parti moom une structure dénommée commission de discipline. oui mais cette commission de discipline c'est vrai que rôle est de veiller sur la discipline du parti bu ak discipline parti mais est-ce que les textes de votre parti disent clairement que la sanction suprême doivent être levées mm-hmm. avant même qu'il y ait des sanctions primaires yo xamni parce que avant ngay dem exclusion définitive amna avertissement amna blâme y a ah, exclusion provisoire mm-hmm. lan a ngeen tëb dal exclusion définitive mm. alors que les textes disent bien que les choses doivent aller de façon crescendo Progressivement. la a la sanction suprême C'est l'exclusion définitive xam nga exclure ce camarade dans un parti parce que la politique c'est l'addition c'est une addition itérative d'un même nombre c'est ça la politique c'est pas une soustraction n'est-ce pas donc suñu une ba décision tombée c'est parce que am na constat loo xamante parti bi def nañ parce que ça fait sept mois la même personne fait la même chose et dit la même chose et dañuy interroger un peu l'histoire par rapport à cette même personne qui est à la même période aux années 2007 Est-ce que la commission si durant ces sept mois la commission s'est réunie et a sorti des décisions dama constat la commission def c'est Sénégalais yep def j'ai dit euh, cette même personne, à cette même période de 2007, avait posé les mêmes actes. Il avait posé les mêmes actes au sein du PDS après la réélection du président Abdoulaye en mettant en place Wachok Alternance. Il avait posé les mêmes actes. Actuellement, il m'a posé nous gagnons ko le PDS mu élection locale 2009. Euh, sous la bannière de sa coalition. c'est important que nous ñi xam nest ce pas lu qui li nit ñi di wax membre fondateur la ba ñuy créer parti bi nekku fi parce que dafa contrôle suñu liste ñu dem élection ñu jël troisième dans le département de Dakar nous mu jël avant d'arrêt. acte boobu mu posé après la réélection du président Macky Sall de de Abdoulaye Wade le la posé après la réélection du président Macky Sall. double si lan. double moi, limu defone defoon rek. ah mais poste yi mu amone ci ci yéen amuko ko ci Ablaye Wade. waaw déglu poste yi mu waxone li mu ci ñun. Mm-hmm. amuko ci Ablaye ci président groupe parlementaire. mais mais donc non non non non non non non j'ai dit. ba muy bàyyi chef de cabinet j'ai dit il était chef de cabinet. ba muy def li def il était ministre conseiller. Mm-hmm. quand il ba muy tok di yedd président ci mbedd il était ministre conseiller. Ah. mbay sen kilifa kenn du ko yedd ci mbedd. su ma taxee ak yow ci mbedd di la yedd nga doo ko d'accord war a dañuy a dàq dama ne Badara Cissé rek kon waroon ngeen ko ci déggoo dama ne xam nga xam nga man nag li ma jàpp ci politique nii nii nii ba coow li ba am na benn coow bi fi jógoon làq doom doo waa defal ba am na benn coow bi fi jógoon nga tudd fi ay tur mhm. tur yooyu nga tudd te dañ doon waxal lu baax Macky Sall fi ñu ko teg du yoon parce que am naa engagement politique boobu ñi doon xalab Macky Sall donte da fi ñu ko teg du yoon donc dafay am loo xamante na dama ko gëm ci parti politique man dama ko gëm te formation boobu laa merci beaucoup mais pour rappel rek li nga waxoon Moustapha Diakhaté li ni mel defoon na ko même chose ci Ablaye Wade ci ñaareelu mandat defaat na même chose ci ñaareelu mandat mandat kii di président te day dem élection locale te élection présidentielle ba Ablaye Wade dafa wàcc moytu leen tamit dama ne day dem élection locale ah, Adama <laughs> Adama man damay wax si leen mooy euh, keroog kii wax na ko fii Moustapha sànq da nga ne euh, yéen APR

mais ci biir parti bi la des ça veut dire que moom bëgg na sauver parti est-ce que man pour man signal la leen jox pour ngeen defaat def taxaw seetlu xool naka ngeen mën a def ba seen parti bi gën a dëgër ba nga xam tey jii parti bi kat tey jii ki ñuy jàpp ne mooy kilifa gi ay la yoon bu fiy jógee tamit parti bi mën a survivre est-ce que loolu waru nekk benn leçon ci yéen xam nga lii tax parti continuer te alliance pour la république nag am nañ ful fulla ak fayda defar suñu parti pour mu mën a survivre suba weesuwul le renouvellement des structures du parti pour rajeunir structure du parti bi parce que changé nañ COJER changé nañ maire changé nañ defal dank rek. changé nañ mouvement de xam nga dama lay dagg changé nañ mouvement de wax nako ko sànq gis nga sen parti bi depuis 2012. euh kurel yëpp yi instance yi ngi fi lim yëpp. COJER xex na gis nañ fi ay diw mako tuddu ñaar euh, ñu fi jamarlo Mame Marème Thiam Babou ak Thérèse Faye Diouf gis nañ fi ci élection locale 2014 leader yi ñu ñu doon def def euh, guerre de tiraillement yi Jurbel bi xam man miin fa gis nañ fa ñaata leader ñoo nek sen bir ba tay ji pouvoir li nga avant maire de région de seen camp PDS n'y a fa gañ ngay gis tey jii boo gisee wax la jox la leçon boobu ci APR nag ngeen war a def ba mu parce que PDS quoi qu'on puisse dire même après Ablaye Wade sax il est un peu faible parce que c'est c'est pas un parti qui est au pouvoir mais au moins PDS existe toujours parce que élection yi fi jaar yëpp gis nañ taxawaay bi mu ba ci législative l'alliance pour la république existe continuera à exister obligatoirement parce que ñu ngi ciy liggéey déglul baax li parce que xam nga nee la lii doxal parti nous avons des jeunes responsables et engagés derrière l'Alliance pour la République nous avons des femmes responsables et engagées derrière l'Alliance pour la République nous avons des étudiants engagés et responsables derrière le, président de la République engagement ambition nous avons des enseignants engagés et motivés derrière l'Alliance pour la République ñu fi pour kenn ñun Alliance pour la République maintenant da ngeen ñoo le rafet mais nous ñoo fait, ñu ciy parce que parti bu pour sa continuité il liggéey doo fait jël qui fait, ci maire nga teg mu andi doxalin bu bees def recrutement politique bu bees def travail politique bu bees pour consolider les bases de l'Alliance pour la République. avec des transhumants. Hmm. avec de grands transhumants. il n'y a aucun transhumant qui détient un poste de responsabilité dans au sein de l'Alliance pour la République soo ko xamee wax ma. ah mais non au sein de la coalition. j'ai dit au sein de man sama parti la ñuy wax sama parti sama parti la ñuy wax. franchement j'ai dit franchement je parle de mon parti. non man man xam naa nga xam nga votre parti tey votre parti mon moo au pouvoir Moi c'est le président Macky Sall mon président APR le parti APR tey le président Macky Sall mon mooy nommé tey gis nañ des ministres yoo xamante ne bii nommé nañ ils ne font pas partie de l'APR mais plutôt de la coalition Benno Bokk des directeurs de société yoo xamante ce sont des transhumants bëri fi bëri fi bëri na PDS lañ mais bul ne ndax APR c'est le président des femmes de l'APR mosuñ koo dégg ba temps yi lañ ko changé ndee madame Badiane moo ko nekkul suñu dégg benn activité bu def mm-hmm. mais Adama nag ñu ci réew mi de nekkuñ Chine nekkuñ Japon de ci renouvellement lañ nekk waaw mais non nekkuñ Chine nekkuñ Japon defal ndànk bay ah non soo bëggee wax yaakaar ne commune nekkuñ Chine nekkuñ Japon bay dama lay wax parti politique nga may wax état non non non non non non me di c'est le fii amul fi changé wuñ ko le président de la République ba tey président APR mooy président Sénégal mais c'est le président de la République constitution bu Sénégal moo ko jox pouvoir discrétionnaire de nommer au poste civil et militaire

noonu la ko suñu statut parti may ko mu nommé a la tête des structures. yéen ngeen yooyu. rey PS rey AFP rey ñëpp. dugal leen ci biir di leen nommé di leen jox ay di leen def ministre di nommé seen biir parti waa PS ñoom seen bopp bañ ko quand même. mbay di nga ma ah, déglu. ah non soo buggee wax yi man ma d'accord ak yow non wax dégg nga li may wax dafa ne. may ko mu daaneel après damay am deux wax yi may wax dama ne. si le président de la République nomme constitution moo ko may ku ko neex lay nommé nag mais suñu biir parti. kenn mësul que Macky Sall jël un transhumant un transhumant jox ko de structure Ndeye Saly Dieng boobu ngay wax biñu ñu nommé responsable des femmes elle a monté beaucoup de comités ici à Fimoudek, fi avant qu'on la nomme responsable des femmes elle a abattu un travail extraordinaire de femmes légitimité au sein de l'Alliance pour la République Moussa Sow pareil Abdoulaye Diagne pareil des apéristes pur et dur la tek ci bop structure amul ben transhumant bu ñu jël jox ko structure amul ben transhumant bo xamanteni ci parti politique nga bokkon ñëw ñu duggal le biir secrétariat exécutif national la paix e. kon transhumant yi amuñu leen jëriñ j'ai dit. Hmm. amul ben transhumant amuñu leen jëriñ la wax. dama bëgg nga déglu ma. déglu naa la bu pour vous dire que Macky Sall le président Macky Sall li muy dox ak li def xam nako dans son parti. man de su ma àndoon ak yéen tey bàyyi leen tey. Hmm. mais su loolu yow la loolu yow la. amuñu leen benn njëriñ tey bàyyi leen tey si ngoon ndaxte li ngay wax nii si kanam ñu non c'est bon vous avez une minute pour terminer. japp ko nak ko nga revenir japp dama lay wax mu leer parce que amul ben transhumant bu Macky Sall jël jox ko bop structure mu diriger ko. amul benn transhumant bu Maka Diall jël dugal ko biir secrétariat exécutif national bu la lay. am na ñu nekk secrétariat bi exécutif APR te yoruñ benn benn benn ndombal tànk fii loolu moo tax ñuy génn di kaas. loolu foofu laa bëggoon a ñëw foofu laa bëggoon a ñëw boo xamante ne dañuy décider quoi que ce soit. loolu kañ man ma bañ a a bokk APR waaw mais xaar rek loo bëri tey ma bañ nekk APR man waaw xaar rek xaar Adama man tey ma bañ nekk APR nekk beneen parti boo xamante ne yóbbaale ma la comme parti nga xam moom ngeen àndal benn bokk yaakaar ngeen ñëw ngeen jox ma poste de ministre wala poste de directeur de société et eh, bi lay moom a gënal fukki junni ngeen duggal ma ci biir parti bi te doon ma jox dara da nga may cité ben responsable bu nek biir alliance pour la république bok secrétariat exécutif te deful travail politique ba ca war au niveau de la base tous les membres du secrétariat exécutif de l'alliance pour la république gèrent leur base politique ñenn ñi dañ leen soxla sur le cadre de la mobilisation ñenn ñi dañ leen soxla dans dans le cadre de la réflexion parce que politique nak dafa am ñoo xamante ni mobilisation lañ leen soxla dafa am ñoo xamante ni réflexion lañ gis nga politique Sénégal kenn du ko jàngal le président Macky kon nañu muy réfléchir de de jaaxal nañ dafa am ñoo am na ñoo non ils sont dans ils sont membres du ah, secrétariat exécutif non déglul ils mhm. est-ce que du secrétariat exécutif national ku ci am base politique aujourd'hui va à l'Assemblée nationale les gens qui sont à l'Assemblée nationale ont leur base politique département ils ont leur base politique aujourd'hui ndax naa la ko 2009 nous avons njëkk dem élection 20 jours la ñu am ba dem 2009 on est sorti troisième dans le département de Dakar nous avons été le seul parti politique créé 20 jours après sa création nga gagné ay communes. Nous avons eu Sénégal dañuy présidentielle. Trois ans après, on, arrive au pouvoir. Tout se fois. Depuis lors. Tout se voit. Santé Yalla, Yalla na Tout se voit. Tout se Wade tout ah, Mais pour vous dire. Nous avons été la, le seul parti politique en 2011 on a dit qu'on a 400 000 militants amul ben parti politique bu taxaw sañ taxaw bu diinu tant de militants nous l'avons fait en 2011 sur une base très très clair et figé. sommes dem 2014 avons perdu combien de communes à Dakar. avec taxawu Dakar bi avec le président Khalifa Sall. vous avez perdu combien de communes à Dakar. ci 14 communes n'y ñaar gagné les 12 autres communes da ngeen ko perdre. Khalifa kañ la taxaw Dakar Ndakaaru bi ngeen ko dàqee génn ko les ko de Dakar il vous a battu à plat président d'accord avec toi minutes s'il vous plaît euh, non, non Non, non, non. Non, non. quoi parce que biñ yangi euh, peindre ben tableau APR bo xamni ni nii. Mhm. tableau bu rafet. zéro faute ah tu parles de 2011. hein boobu moy bi ngeen di sogo a jóg. boobu yéen ngi sogo a di dugg ci walu politique. Ah taxawal parti politique. Ah, seen parti mais depuis boobu ba hein. ah. comme on dit hein. beaucoup d'eau ont coulé sur le sur le beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. li fi am barina mais dama vous ngeen comprendre la situation comme titre le parti de Macky Sall au fond du trou il mhm. y vivre une zone de turbulence un parti qui se dit démocratique doit pouvoir faiblesse la le débat contradictoire bi nga faiblesse mhm. retransformer en force très bien le débat vital que nga poser comment gérer ces contradictions là en termes d'unité pour aller sur de nouvelles bases mais quoi wax bu une chose contraire ce qui ne ce qui ne cadre pas avec la volonté du chef vous avez ko dëmm euh, ko troisième mandat ñu dàq la ah. man troisième mandat ñu parce que je ne suis pas un donneur de leçons je ne suis pas politique. mais je sens que y vous avez un parti démocratique un parti qui se respecte, un parti qui a des ambitions. Ce parti-là doit pouvoir régler ses contradictoires, ses contradictions au, en son sein même. Nous nga que nañu di wax Nous mais fii laa nous euh, bu tribunal un tribunal qui a condamné sans pour autant déglu ki nga nous l'accusé est-ce que vous avez eu à entendre Moustapha Diakhaté nous ne sommes pas là d'ailleurs pour le défendre nous ne sommes pas là pour le défendre mais dans un parti qui se dit démocratique et qui tient au texte, parce que je te reprends au mot, les textes sont démarré. Il, faut que vous soyez conforme avec vos textes. J'ai dit, mm -hmm. en violation flagrante des textes du parti, Moustapha Diakhaté s'est auto-exclu du parti avant la décision de parce que le fait de donner des positions contradictoires, je ne parle pas de positions contradictoires. Le fait même de ah, créer un mouvement avec mouvement bo xamante tax su jëloon couleur parti bi logo parti bi on pourra comprendre que mi ngi ci biir parti mhm. mais mu jël face bi entièrement jël beige bi lan la ci jublu. refondation la wax la refondation d'un parti. tu changes de couleur et de logo fan nga ko tek mais yéen seen kii rend 14 jours la moom 14 jours avertissement. j'ai dit refondation d'un parti politique. nga change logo change couleur parti fan nga ko tek fan nga tek lolu lan nga ci djublu li nga ci djublu amna lo loo ci jublu woon bëggoon nga dem way ngal la dem l'affaire Moustapha Diakhaté pour nous c'est derrière nous aujourd'hui su nekké nak les gens travaillent pour mu dellu soir na ñëw rek parce que affaire mom duñ beddi kenn à vous entendre c'est comme si dañoo passer notre temps à exclure des gens l'APR mi ngi doog a jël décision exclusion l'Alliance pour la République muy Moustapha Diakhaté yéen a 10 ans. yéen ngeen di bébé. mais bravo à nous mais bravo à nous nous allons pas regarder. c'est un petit parti la l'APR. <laughs> c'est un petit parti la paix. quand je dis petit parti je ne dis pas en termes de ak gérer non non parce que c'est un petit parti Boum mu juddoo boobu ba tey. sant yàlla l'APR waaw bu mu juddoo dimbali aux élections en 2012 ngeen gagné avec une coalition. je termine avec une coalition Adama Adama avec une coalition. d'accord bravo mais il faudrait que nous xool ko contexte c'était tout sauf Wade car bloquant Ablaye Wade bi ñëpp ak nga xamante ni moom mooy moom mooy moom Macky Sall et là habitant Fouta yi dégg ñu wax nee nañ xamul ni lay démé duñ and ak nga xamante ne moom Macky Sall ak ñeneen ak ñeneen ño xamante ne nañ ak mom la verte Casamance da ko doon gagner les élections de 2000 les élections de 2018 wane ko ni vous avez perdu la Casamance Thiès vous ne l'avez jamais gagné nous n'avons pas perdu la Casamance waaw mais non vous avez perdu beaucoup de poches nous avons perdu beaucoup de poches vous avez perdu beaucoup de poches nous avons et aussi vous avez perdu aussi la ville sainte de Touba, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous n'avons jamais gagné Touba. Warni, non, j'ai dit. Nous avons jamais gagné Touba, même à l'opposition. Warni, ça prouve encore une fois que la paire est au fond du trou. Vous savez ce que je veux dire Ngeen jéem a xool nag ngeen koy suqalee mais pas di jéem di ko peindre peindre mm-hmm. moo tout est gongo, tout est joli tout est beau non tout est ma peau tout n'est pas joli. maintenant maintenant maintenant dans le dans le cadre de la communication da nga bëggoon ma toog tout est noir c'est bon. Maintenant, reconnaître Merci. Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. C'est bon, je n'ai plus rien à dire. C'est bon. Ah, c'est la Donc je vais vous dire. dans

di vilipender sama parti ci mbedd mi du ma ko ah, def. Ah, je ne le ferai jamais waaw war nga ñu sa position. gis nga doo toog fii di wax sa parti dara baax man li euh, lu ndaw la mooy li nga mhm. man je pense que Moustapha bu demee ba jël fasu entier teg ko c'est parce que am na yu manqué ci biir APR seen parti boobu mu lu ko munul ne mu daal di kii euh, créer parti pour mottali ko. juste pour dire que bah oui.

le commentaire est carrément libre, mon cher. Mais mes chers, je dirais. Hein? Parce que aussi, tu es à ma droite, heureusement, <laughs> Donc, pour dire que le débat est passionnant, mais nous sommes dépassionner un peu. Pour dire, au niveau de l'Alliance pour la République, ce que nous savez, c'est que ko pour mu yem ci ñaari mandat wala mandat nous avons construit un parti dans la durée. ci ñaari ngeen di nous avons, nous avons construit un parti dans la durée. numéro 2. Dauphin.

nous sommes dans une phase nous avons 11 ans élève bu 11 ans C'est ban phase lay toll. def anniversaire ci permanence. non dama 11 ans xale bu 11 ans ci ban phase la toll 11 ans la am en transition. dem lycée am e n'est-ce pas war a lycée dans la phase de maturation politique et cette phase de maturation politique il y aura forcément beaucoup de problèmes. Il y aura forcément beaucoup de situations dans cette phase. Parce que nous avons une phase de mutation, obligatoirement vont disparaître. Parce que nous sommes en phase de mutation politique. Et cette phase de mutation politique doit se faire avec les jeunes engagés. Des jeunes qui ont fait la nomination. Et des anciens qui mis le parti sur pied, Badara Sissé, Moustapha Djaké, Ces gens-là sont des sages du parti. Non, j'ai dit des gens qui ont mis le parti sur pied. J'ai dit, ces gens-là sont des sages de ce parti et nous leur devons beaucoup de respect. Parce que quand on balayait cette, la permanence de l'Alliance pour la République, d'Ambar, ben, nous avons balayé. Nous avons ne mérite-t-il pas beaucoup plus de considération. maintenant est-ce que nous devons faire doo teg foofu noonu sa loxo ñu dugg ci li nga xamante modi info média ñuat sur le plateau de Tawan ci tey nag ñu nar a waxtaanee <laughs> li ki nga modi ne gis ngeen nak lu yàññi li nek fi ci plateau bi ma bay rek caméraman bi may leen pour leen pour wa applaudir ah il faut applaudir ah Ndaté ah. parce que nak moom mo gagné li nga xamante ne moy prix France Terre d'Asile ba tax na nag lu ni mel waral tay nak ñu daal di ko dalal ci plateau toi-même tu sais kiko dalal nek suñu belle et ravissante -hmm. Euh, ni nga ko waxee rek leena euh, di féliciter suñu confrère suñu naataango bi nga xam ne mu ngi rajo Futurs média mm. donc ci prix bi nga xam ne gagné na ko euh, waa France terre d'Asie daal di ko koy jagleel ndax dafa def benn gëstu mi ngi ko tuddee traite des des personnes donc bu ñu ñëwaatee ci gëstu bi nga xam ne def nga ko rek nda ndate nga jagleel ko ci traite des des personnes lan moo nekk ci gëstu boobu exactement. merci di euh, jaajëfal wa DTV ñi nga xamni tay qui a, euh, euh, nañu indi prix bi pour ñu waxtaan ci. léna wax nako sank ben production journalistique la. Mm-hmm. avant production journalistique bi sax un appel à candidature la Il y avait près de d'une quarantaine de journalistes qui candidats ne candidaté

nga proposer quelque chose appel international la appel bi international la c'est au niveau mais c'est entre trois pays le Sénégal la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Hmm. mais appel à production bi Sénégal 15 journalistes avaient avaient souscrit ces 15 journalistes yoyu, trois ñoo ci mujj génn trois yoyu mu nekkoon man ndaté Diop journaliste RFM et euh, Jean-Paul Ndour. Hmm. bi euh, nekkoon RFM légui mu nekk euh, Medi 1 ak euh, Aliou Sambou Bodian bu mm-hmm. nekkoon deux s euh, léegi mu nekk blogueur journaliste blogueur freelance moi, ku ci le sujet parce que traite des personnes de Fayatou, bu tu ci doon waxtaanee tey jii ci Sénégal traite des personnes mën nañ ko jàpp ci ñetti fan, yi nga xam ni am Sénégal d'abord la mendicité forcée des talibés mooy xale yi nga xam ni dañ leen di rawatina ñi nga xam ne ñoom la biti réew di leen jëlé ci réew yu démé ni moom mo nek ci sous région bi di leen indi fi ñu wax ni dañ leen di jàngal alors que dañ leen di exploiter dañ leen di yalwaan lo jàngaluñu leen benen sujet traite des personnes moy bi waral prix bi mom moy la prostitution forcée la prostitution forcée mom moy jigen ñi nga xam dañ leen di jëlé ci biti réew Nigeria, Mali Cameroun Bénin di leen nax ni leen dañ leen di yóbbu biti réew pour ngeen dem liggéey mooy sujet bi nga xam ni man moom laa def ak sama naatangoo boobu moom mooy la la prostitution forcée dans les sites d'orpaillage de Kédougou jigéen ñi nga xam ne ñoom la ñuy jëlee biti réew di leen wax dañ leen di yóbbu ngeen dem liguey fo xamni di ngeen fa am leneen lu gën mais li ci mujj dañ leen di nax Europe lañ leen di wax dañ leen di wax Europe lañ leen di yobbu wala ñu ni leen dañ leen di yobbu États-Unis wala fenen mais du ñu continent africain li ci ëpp Sénégal lañ leen di indi bu ñu leen jugalee dañ France ngay dem ba si ñu ni la dañ am problème mu jël vol fii fekk réglé nañu en avant ni papier yu ñu leen di ci Sénégal traite la ni len avion bi mujjul réglé mënu ñu déparé Nigéria dañuy dem ba Mali bu ñu ba Mali ñu naxatal naxat len ni leen dañuy dem Togo Togo ñu naxaat leen ñu ne léegi Sénégal lañ mën a déparé Sénégal la ñuy déparé aéroport Sénégal bu ñu ñëwee àll àllu Kédougou la ñu jëm ci nga ni dama lay yóbbu biti réew mhm. ni ko dama lay utal dundin bu gën nga ñëw fu ñu koy yóbbu du fenn fudul fi ñuy gase wurus ci Kédougou te boo ñëwee dangay ngay ay kayitam téye carte d'identité am Niko limole jele Nigeria ou le limole jele Togo, temps là. 1 million 500 ou le 2 millions 500 ou le fois 500 000. Généralement, les Sénégalais les donnent, maliennes ou. Non, c'est des étrangers. La prostitution forcée. la Prostitution, si on a comme traite, il faut soit transport, recrutement, hébergement. il faut pour ñu wax traite des personnes am ci prostitution forcée il faut nga jëlee ko pays quitteloo ko frontière dugal ko pays kon donc ñiy def lii c'est des femmes étrangères lu ci ëpp Nigéria la ñuy jugee wala ñu jugee Mali wala ñu jugee Togo. ñu leen di def loolu. bu ñëwee dañ na c'est des passeurs. mais ci réew mi lañ nekk wala. mën nañ nekk ci réew mi mën nañ nekk ci beneen réew. Il y témoignage parce que le reportage on l'a fait pendant deux mois on a fait deux voyages à Kedougou, fu si demee Tengkoto Tenkoto ak Bantako c'est des sites d'orpaillage fu ñuy gase ours la faut que les mais elles sont sans défense Si vous fay lii lañ leen def ci voyage mënu leen ko fay li ngeen def moom mooy jaay seen bopp moom moo fi sës vous boo demee boo nee kemenaan yi xam nañ ko. kemenaan mooy. kemenaan yi ñaari hmm. téeméer. ñeenti téeméer ñeenti francs. 2000 francs yooyu lay représenté. c'est le prix de la passe. Hmm. jigéen ñooñu francs lañ leen di sàkkoo. kemenaan yi moom mooy ñeenti Kédougou xam nga si soose la xam ban làkk la si boo nee Kemenaan yi ñun la jigéen ñi jaay seen bopp. léegi 2000 boo joxee 2000 tu passes toute la journée avec la femme. non pendant pendant un temps, déterminé. pour la passe c'est une seule passe. pour la passe xam nga ñooñu mu nekk lu phénomène boo xam ne nii. dafa bari ci sous-région bi. mais ndax loolu autorités yi yëg nañ ko. mais xam nañ ko. Mm. parce que boo dee xool euh, au niveau international la traite des personnes est interdite par la convention de Palerme Sénégal Khatim na loolu. tout à fait Sénégal aussi aussi mis une loi nous avons wax loi 2005 06 du 10 mai 2005 qui interdit toute forme de traite Sénégal mis une loi. mais les autorités vous avez ci le reportage bi suivre ce sont des interrogations que nous sommes posées est-ce que les nos autorités sont complices non elles, sont, au courant. Parce qu'on a eu à rencontrer le gouverneur de Kédougou, on a eu à rencontrer le procureur de Kédougou, on a eu à rencontrer le commissaire central de la police de Kédougou. Mm-hmm. mais c'est un phénomène qui est là. mais le nous ñu plus pas ci ci ci li grave ko peut-être y' a une cellule nationale aussi qui est là cellule nationale de lutte contre la traite des personnes dirigée par Modou Girandou Ndiaye loi bi ma wax Sénégal daf ko xaatim jugee ko ci convention Palerme ñu def suñu loi ni loolu dafa war a mais à y voir da nga est-ce que kilifa yi ñoo réellement ce rôle parce que la traite est là-bas c'est une réalité on est allé jusqu'à Tenkoto chef de village bi nga à lui seul un chef de village qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à une situation qui est là te ñoom fépp site d'orpaillage bu am Kédougou fépp fu ñuy gazo Kédougou boo dee il y a plus de 80 vingts sites d'orpaillage parce que li tax ñu ñew Kédougou mom moy dañ nan la gasu urus ak sobé ñom ñoo and parce que faut gis ñu fay rechercher or à côté il y a la prostitution parce que c'est la prostitution néna ñu mom moy tax sobé bi mom moy tax or di génn <laughs> donc c'est des réalités ancrées ci suñu bop yi mais kilifa yi aussi timit ñoo ngi def parce que euh, prostitution au Sénégal prostitution kenn terewu ko la prostitution est légalisée mm-hmm. mais li ñuy bañ mom moy la traite mm-hmm. la traite mom moy nga jëlé nit feulé par contrainte par la force par la violence ou bien abus d'autorité bo am ci mom nga ni ko kay def li mm-hmm. mu ciy def te xaalis bobu xale yu jigéen yi di gagner deux mille deux mille francs yoy. buñ ko dajalé dañ koy joxaat ki nga xam ni moom moo di passeur bi. finalement duñ ci am dara. duñ ci am dara parce que moom mooy le prix de la du transport bi ñu leen indee. les 1 million 500 kon ñoom lan lañ ci am après elles ne sont libres que qu'après avoir payé le prix du transport. Mhm. suñ ko payee après elles sont affranchies mais ndax ci témoignage bi nga ngay mais ko bëgg déglu reportage bi ak ñi nga xamante ne téléspectateurs ñu seetaan ñi nga xamante ne bëgg déglu reportage bi nga xamantene jot nañ ko def fa lañ jëm mhm. reportage bi déjà closing ñu signé woon ak euh, l'ONG euh, France Terre d'Asile ak partenaire bi di ADPS nek fi Sénégal mom mhm. mo nekkoon le reportage que le reportage soit diffusé d'abord dans nos médias avant la projection mhm. le reportage a été diffusé sur les ondes de la RFM Ensuite, le reportage est sur la plateforme de cette ONG. Moi, je dispose de la production. Jean paul Dour aussi dispose de la production. C'est une production qui a été financée, mais la production nous appartient, en tant que journaliste, mhm. parce que c'est un travail de recherche, une, enquête que nous avons fait en tant que journaliste. Mhm. La production est là, est une production radio, mais on a fait de telle sorte que la production soit euh, euh, une production qu'on peut regarder pas avec, euh, avec euh, euh, un, film vidéo, avec la vidéo, mais avec des photos à l'appui. Mm. C'est un reportage imagé et illustré avec des photos. Des photos à l'appui des filles que vous pouvez voir, les autorités, mais tout avec tous les témoignages qu'on a. Mais ça montre un phénomène qui est là, une réalité qui est là. Et qui existait depuis quand Ça existe depuis. Depuis toujours Depuis toujours. Gouvernement, et ça ne se limite pas au Sénégal seulement la traite des personnes est un phénomène qui est là qui est au niveau international parce qu'on te dit que la traite des personnes est la troisième source de revenus à part la drogue avec euh, la contrefaçon la traite des personnes est devenue l'activité la plus lucrative Les drogues di avec ak euh, contrefaçon les troisième position traite des personnes mon

volontairement mais ce n'est pas si c'est parce qu'elle fait en déphasage avec notre sujet. parce que traite des personnes comme nous ma la ko waxee transport recrutement. donc il faut mu les frontière. donc ñi que des filles, elles font là-bas mais elles font de la prostitution Ce n'est pas de la traite. c'est volontaire c'est volontaire mais Boli c'est une prostitution forcée. qui est sous-tendue par une activité qu'on appelle la traite des personnes parce que les leen di jóge seen réew des leen wala ñu forcer indi leen ay nit di ci liggéey ci seen kaw ñun loolu mo nekkoon mu nekk loo xam ne rek war nañ ko mën a vulgariser di gën a ñaax kilifa yi rek ak cellules yi nga xam ne teg nañ ko fii ñu gën a yëngatu ngir xeex lu ni mel parce que ay euh, ONG ñoo jugee biti réew di leen financer di ci di ci di sensibiliser pour que ce phénomène là puisse cesser nous nos autorités aussi doivent faire de même pour que phénomène yu demee nii jeex ci réew mi merci beaucoup hein, en tout cas Ndaté hein, félicitations vais parler juste pour Fatel, le ki nga xamante ne suivre le reportage bi dinañ plateforme RFM n'est-ce pas. Mm-hmm. non euh, mais ici, si une plateforme. RFM mais il y a que ce soit la DTV ou bien une autre télévision quoi ko soxla. aussi limite. voilà bu waxtaanee mën en production vous avez parfaitement raison hein. merci beaucoup en tout cas et merci d'avoir accepté notre invitation vous êtes une fierté rawatina ci le journalisme. Mbaye dafa amaat leneen loo ci wax. parce que sànq léegi yaa ngi attaqué Adama. non attaqué moom dama dafa ne pour foog suñu autorité wax ci dara. Mhm. ma ne du ñii. waaw ah, merci dinañu ñëwaat Adama bul tontu dinañ ñëwaat ci léegi ci yow incha allah. homme d'essai ñu wax ñu rek li nga xamante ne moom ngay waajal laa tax ñu pare benn part première partie bi. bon ñoo ngi waajal euh, concert le 9 février. incha allah. fait allah fee ci hôtel ambassade des Parcelles Assainies unité 13. Mhm. à partir de 16h di invité Sénégal yi ak.

waaye doomu soose lañ te mhm. waaw te yaram bi day gaaw a daw ko macha allah so loolu daal laa amoon li may wax invité nañ àdduna bi ñëpp ci le 9 février. incha euh, di wax nañu suivre aussi YouTube. Mhm. Euh, l'homme DC te mënuma terminer sans nuyu sama yaay. Euh, di nuy nga xamante ne ni depuis Guédiawaye. Mhm. nuyu samay fan sama waa suñu waa kër ah, nga xamante ñoom jàppale nañ ma ci.

merci beaucoup hein. c'est très émouvant une occasion pour nous aussi de hein. et merci beaucoup à vous restez scotchés devant vos écrans nous revenons tout de suite après la publicité famille vous offre la qualité au meilleur prix. Du prêt-à-porter pour hommes, femmes, enfants et le tout soldé à des prix défiant toute concurrence. Désormais, venez profiter de nos offres exceptionnelles à la cité Sonatel 2 en face SAMU municipal sur les deux voies Liberté 6. Dujafé, téléphone 33 867 55 00. Dujafé, Alhamdulillah. Alhamdulillah.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 lu bees te xéewale ci TNT by Excaf ngir seen abonnement soxlaatul ngeen di dem ci agence seen carte recharge mana. bu junni am na ci suñuy point de vente muy ci agence yi boutique wala jaaykati carte crédit yi su ngeen di yeesalaat seen abonnement ak carte mana. da ngeen di xoos fi nu def fukk ak ñaari araf ca nëbb ko ngeen jël seen téléphone def message TNT def étoile def numéro carte abonné gi ngeen di rechargé waate def étoile def numéro seen carte mana yónnee ko ci 24 660 66 da ngeen jot ginnaaw si bataaxal bu leen di xamal ni seen abonné benn weer dugg na ñu tegal leen it mbaqu sub juróom-ñaari fan yeneen ak TNT bay Excaf dundaat leen beneen xeeti mbégteem ceetaan ci télévision

tunga lelo Saba miliamba samaye kono lelo Saba miliamba tadaba ya to mama hakilima hakilima lamkanute awa maryamma dole Mariamba bulti buragal yow bebe Namuna la tanala denge muchi andanda Jakano kanula ya sabuja Mariamba muhanyi ulogono Soña Mariama ma xaañi wuloo kono Mariama Jallo wax na la yow Mariama bul tiit bu ragal xam naa ni li nga dund mu metti woon na waaye xol bi ci may day nga ci àndandoo bëgg naa la taamu laa yow ma yamma manhaji wulo kono sonyala mariamma manhaji wulo kono mariamma jallo mariamma manhaji wulo kono mariamma manhaji merci beaucoup merci beaucoup à vous hein. merci beaucoup à l'OMDC. et bonne continuation ci seen par parti émission toi-même tu sais juste que vous rappelez, nous allons parler de de l'actualité sportive après le ñu de de xuus ci beauté et bien-être avec la belle et sublissime Koura Bokoum, duñ ci yem euh, ak nga invité événementiel moom nak di wuyoo ci turu Pape Samba Dieye nous ñu rejoindre plateau Pape Samba ñu ngi Pape Samba ngeen di waajal li nga xamante désherbage des cimetières. le samedi 25. Inch'Allah. Inch'Allah. Mhm. incha allah incha sa activité. waaw euh, samedi 25 nous koy organisé au mhm. cimetière de Yoff. Mhm. Euh, à partir de 8 h euh, on est à notre troisième édition. donc nous ngi koy def di ñu association association la bu tudd intérêt général. di ci volontarisme engagement et dans l'économie solidaire nous, sommes des entrepreneurs sociaux en général donc comme on le dit comme da le gis ci monde bi fu volontaires américains et volontaires français mu nekk que xamante ni l'économie économie mondiale bi ni muy le volontarisme et les entrepreneurs sociaux Entrepreneurs sociaux, nous maanaam ñi nga xamante versé l'économie économie solidaire l'économie aux gens solidaires mm-hmm. donc et nous évoluons aussi dans d'autres activités mais environnement Nous volet environnement li gens a le désert désherbage cimetière bi bi donc ren ñu and ci ak wa ville de Dakar ñi nga xamanteni ñom ñoy gestion bi parce que j'aime bien le dire ñoom ñoo gestion au cimetière yi te buñu rek ñeu dugg non ci cimetière ñoy gestion bi donc xeyna am nañ vision bi ñeu nañ partager ko ak ñun tay ñu ubbi ñu seen buntu donc ñuy ñaan sénégalais yi ñëw ci lay ñëw fi ci DTV donc euh, di ko partagé ak yéen mooy nuyu ñu fekk ñëpp ndate grand mbay euh, booy aadama booy aadama booy aadama booy aadama ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu mhm. donc nous sommes aussi dans euh, l'éducation sociale, éducation et d'autres activités. Exactement. Euh, Boy Adam, nous avons des désherbage des cimetières. C'est samedi 25. saluer parce que mhm. aussi ça rentre en droite ligne par rapport à la vision du président. Mhm. Dans le cadre de zéro déchet et autres, si nous disons à jeunes, nous gisee ay ay nit ñoo féliciter et dire que nous allons venir les accompagner dans ce qu'ils font parce que c'est un acte très noble et nous allons lancer un appel à toute la toute la toute la population sénégalaise ou à toute la population dakaroise de faire pareil parce que c'est un exemple à suivre mais pour wax ni euh, solidarité entre les gis nañ ko Grand Mbaye Mom ak Boy Adam amul Boy Mbaye la ak Boy euh, PSD <laughs> merci beaucoup Mbaye une activité noble hein? effectivement très très noble soo seetloo sax ni nga xamante ni bi ñoom ñoo koy def muy Pape Samba Dieye mi nekk fi nga xamante ni moom mooy intérêt général daanaka jiite ko sax te lii sax du guleet dañuy def ay don de sang dañuy maye li nga xamante ni moom mooy affaire yu bëree bëri di aider Hein? c'est vraiment une activité très très noble et nag wax dëgg fa yàlla di defar fi nga xamante mooy cimetière Yoff ku ci amul mbokk bu fa tëdd am nga fa xarit bu fa tëdd cimetière Yoff moom dem di ko defari moom wax dëgg fa yàlla loolu acte bu noble noble la noble la mm-hmm. xam naa Mansour Sall moom faw mu dem fa la tax nga moom su dee fa ko yóbbu

de wàllum euh, actualité sportive dañuy tijjee li nga xamante ne mooy làmb wala football local wala basket. tey moom yaay tànn làmb ñu def rapidement. làmb ñu tijjee làmb waaw. aywa boog ñu gis ni dañu gis benn euh, divorce entre papa ak papa ak écurie mhm. mhm. papa Sow. ak écurie moom daanaka jeex na parce que soo dee seet génn bi nga xamante moom la defoon keroog ca face à face ba doon dox ci diggante moom ak Siteu génn na ba wax na le lendemain dégg na ki nga xamante ne moom mooy directeur technique Euh, mooy génn tamit wax né Papa saw limu def suko défé dañ ko jox li nga xamante mom moy mooy ligne directrice su écrit bi. Mhm. Papa saw n'a pas voulu respecter ça nee daf ci signé bic rouge la ci signé d'accord ci tay d'accord suba lool moy nangu ko kon nañ japp ni euh, Papa saw danaka génn fi nga xamante mom moy mooy écrit face Papa saw nag ñu gis ci mom sérieux Papa saw ñu gis ci mom li nga xamante mom moy mooy liggéey nee il fait partie des lutteurs les plus sérieux de l'écrit face de par ses entraînements heure bu waree dugg ci li nga xamante mom moy VIP ñu gis na dafay am ngànta ngànt gis nañ ko digganteem ak Ness gis nañ ko digganteem ki nga xamante ne aussi moom mooy euh, Lac de Guiers numéro 2 na rafetlu wuñu ko képp ku nekk ci làmb doo kontaan ci Papa Sow génn fi nga xamante ne moom mooy écurie Fass waaye nag euh, lamb la euh, sport la. 18h42 ah, balaa ñuy dugg ci actualité bi juste pour ki nga xamante ne moo di Abdoulaye Ndiaye dafay dem waajal li nga xamante ne moo di xibaaru mbarax yi Abdoulaye. lu ñuy xaar yaa ngi ñu koy tasal ci anam ñu mu gën a. yu mu gën a leeral rek faram-fàcce ko incha allah. incha allah askan bi xabaar Inch'Allah. Oui. incha allah le ci li nga actualité sportive ñu basket NBA affiche de cette nuit. à 20h Charlotte Milwaukee Orlando Boston Detroit Memphis New York Toronto euh, Chicago Sacramento Miami Clippers Minnesota Houston New Orleans Denver Oklahoma City Atlanta San Antonio Phoenix et à 3h30 du matin Golden State Indiana. football local programme 7ème journée Ligue 1 et Ligue 2. Demain samedi, Stade de Diouf à 16h30, Tengue Ndiambour, Stade Amadou Barry Dakar Sacré-Cœur, Diaraf de Dakar. Le dimanche, Stade Alun Situé et à 16h30. Le Casasport reçoit Génération Foot, Stade Caroline Feuille, toujours le dimanche. Stade de Bourg, Bourg, Petite Côte, c'est les de Bourg. Stade Amadou Barry à 16h30, toujours le dimanche. Douane Djambar, Stade Municipal de Mbao, Goré NGB, Stade La Dior de Thiès, CNFC Et pour la Ligue 2, samedi, Stade Caroline Feuille à 16h30, Kurma Dior, Demba Diop. Et le dimanche, stade Ladjor à 16h Amitié J Stat stade Sen Sène jamono Linger. stade Lamine Gueye Sonakos euh, Thiès FC stade Ibrahim Dakar Université Club stade Ngalandou Diouf Port Africa Promo Foot et pour terminer stade Al Djigo Renaissance Union Sportive de Wakam. juste pour rappeler demain c'est la finale euh, coupe maire au C'est une coupe maire au Fatik, le ministre des sports Matarba ministre maire aussi de la ville de Fatik. Enchaînons avec le football européen, le bilan juste pour dire que le football européen on aura beaucoup de matchs euh, le phénomène Alan le recevoir qui le Borussia Dortmund en Italie Brescia Milan ancien Bouzlatan Ibrahimovic et pour la Ligue 1 Nice qui reçoit à l'Alliance verra l'équipe de Rennes et les autres matchs sur Osasuna et demain on peut remarquer un autre choc Valence de de recevoir le Football Club de Barcelone à la baisse Villarreal en Italie euh, Spal face à Bologne, Fiorentina, Genoa, Torino, Atalanta de Bergame. Et juste pour revenir en Allemagne, le Bayern de Munich qui reçoit à l'Alliance Arena, Schalke 04, Marseille-Angers. Et le grand match du championnat de France jouera le dimanche, le Paris Saint-Germain qui ira défier Lille. fële Lille Moniaque, que le grand match du championnat de France et d'une fête aussi Nantes Bordeaux le dimanche et Lyon Toulouse fële Parc Ovel. bonus on jour ndaxte kan Est-ce euh, au niveau européen. Mhm c'est Sadio Mané. Sadio Mané waaw Adama. Sadio euh, Mane. Sadio Mané Mbaye tu as Sadio Mané pour lundi prochain et Sadio Mané pour mercredi prochain Inch'Allah. pour euh, ce joueur. wow man de dafa am joueur qui xamante dafa David Trezeguet. <laughs> il ne joue plus. il ne joue plus c'est le euh, c'est le mari de Béatrice c'est le père de Aaron David Trezeguet il est né en 1977 fële Rouen David Trezeguet a commencé fële nga Monaco mais il n'a pas réussi dem Argentine et le franco-argentin c'est lui qui avait marqué le but en 2000 moom but en en face à l'Italie de Toldo de Del Vecchio de Montella de Totti de Daniel De Rossi David Trezeguet Nyon a li nga xam de coupe du monde en 1992 et pourtant il avait seulement 19 ans nekkoon à AS Monaco euh, li tax mu football sax Monaco parce que Sonny Anderson fait blessé blesser un drame blessé de façon très prématurée jëndee ko fi nga Nantes cette grande équipe nantaise entraînée par un certain Coco Ciodo Nyon Patrice Loco Nicolas Wedek Dominique Casagrande pour revenir ci nga il David Trezeguet il joue à la Juventus pendant 10 saisons ancien partenaire de Tour de Birendelli de Dilivio, de Zinedine Zidane de Ferrara de Cellini kooku nga xamante il moom David Trezeguet il a été un très très grand joueur football fi nga xamante ne moom UEFA en Espagne David Trezeguet finaliste malheureux en 2006 coupe du monde en Allemagne David Trezeguet un très grand attaquant troisième meilleur buteur français de la Ligue des champions avec 32 réalisations ah le père de Yohan Koko David Trezeguet. Deux 2002. en 2002. Ah, joueur. <laughs> Ah, neex na ma daal neex na ma te bëgg naa mbay xamal la ko tuuti bëgg gëj nañ ko dégg mooy di Henri Camara. Henri Camara ah, dañ ci wax ñaari phrase parce que vendredi prochain fu mu toll nii euh, vous aussi chers téléspectateurs et chers internautes vous aurez la possibilité. c'est l'enfant de Karak li nga xamante l'enfant de Karak dinañ ci ñëw vendredi ngeen envoyé. ñu société sociétaire du Jaraaf de Dakar en compagnie de Pape Bouba Diouf de Tengue. Maïmouna nous allons enchaîner avec toi hein. la sublissime beauté et bien-être. sensible et réactive, comment se protéger de la poussière évidemment Léna si le seetloo ba le ci mois de décembre ba euh, pollution atmosphérique a changé il y a trop de poussière poussière bi sonal na ñëpp mbay seen balaa nga ci xam la preuve da ngay euh, fomp sa meuble léegi une heure de temps après nga fekk poussière bi yëpp train ci kaw euh, meuble bi mm-hmm. enveloppé ko juste pour dire laa ko mën a waxee rek gën ko leerala la mhm. mu nekk loo xamante ne tey jii dafay tey xel donc période bi ñu toll dafay euh, diminuer l'humidité di tekkee dans leer moo tax ñu naan air bi dafa sekk mu nekk loo xam ne dafay indi ay causes yu bëri ci suñu wàllu wér-gu-yaram lu ci mel ni euh, sécheresse nasale maanaam euh, booy nooyi muy metti nga euh, ngay soif tout le temps sa bakken di dag wala sax mën na la jural li nga xamantene ne ak poussière bi ngay soj tout le temps bo mouché woo di gis sa morve yi mu nek marron lolou lepp day waral ni poussière bi ñu ngi koy noyé té amna danger bu muy def ci suñu poumon parce que mën ñu jural euh, fièvre yu bari euh, des maladies pulmonaires lu ci mel ni pneumonie on sait jamais ak lenen ak lenen yo xamantene tay ji jii ci suñu walu wér-gu-yaram légui nak léna buma ma ben transaction ñew ci li nga xamantene mo nga souligné légui muy peau sensible ak créative xam nga yàlla dafa dogal di euh, sama peau ak may peau na ak sa peau du ñu benn am na ku ci nekk ak type de peau bi nga am am na ñoo xamante ne seen peau dafa gaaw a irrité <laughs> amna ñoo xamantene ne leena ah, seen peau dafa gaaw a irrité tey jii boo jëlee sa mouchoir bii wala sa euh, éponge bi nga xamantene moom ngay poudre bu ma ko utiliser mën na ma irrité def ma ay picc mm-hmm. kon ñooñu seen peau tout le temps dafay nekk en danger euh, ci ci poussière bi dafay nekk en danger avec l'agression externe ba tax na tey jii dama ñëw pour euh, joxe ay astuces yoo xamantene mën nañ ko utiliser ci période bii ñu toll période bi nga xamantene tangul. tàngul seddul waye poussière bi bëri na sonal na ñëpp li ñuy wara ñëk def moy entretien entretien bi lan la ñuy sangu ba set bu ñu sangoo ba pare nañuy bayé sen diw yi nga xamantene dafa am ay parfum parce que bu fekkee da nga am peau bu sensible waro utiliser parfum euh, diw bo xamantene dafa am euh, substance euh, alcool da ngay jël li nga xamantene ne ay huile végétale lu ci melni huile d'amande douce ak yeneen ak yeneen huile de baobab huile d'ail yoy dafa nek yo xamantene da fay réparer sa peau falaa jëm loolu nga xamante ne ñun ñoo ko moom ñun les africains notamment ñi nga xamante ne mooy les pays de l' Afrique de l'Ouest te bu ñu nee les pays de l' Afrique de l'Ouest euh, leena Sénégal ci la bokk loolu moom mooy suñu cosaan bañ na ko bu ñu juddoo euh, karité lañ ñu dàmpee macha allah mu nekk loo xamante ne tamit dina réparer suñu peau ci lu nekk tey jii bu fekkee da am problème mu peau jëlal karité mais prévention nga koy def parce que bu fekkee da nga dem ba am ay euh, problème ci sa peau acné eczéma et entre autres mënoo ko utiliser il faut que nga dem seeti sa benn dermatologue mu ñëw exiger la ay produits yoo xamante ne mën nga koy mën a mais ni pour prévention jëla sa carité, euh, beurre de carité, bul jël yi nga xamante c'est parfumé yu ñuy def ci peau yi parce que am na yoo xamante ne nañ ciy def parfum jële boo xamante ne moom la ñuy jaay ci marché ba nga jël ko seeyal ko ci sa def ko sa benn casserole

ak li nga xamante ne moo di suñu wàllu peau. Mm. parce que nekk na loo xamante ne dafa bari ay vertu dafa bari ay bienfait kenkeliba non seulement dafay raxas suñu deret te euh, air bi nga xamante dañuy respirer moom la ñuy respirer déjà suñu euh, bakkan euh, nasal bi genre dafay filtrer. air bi mais buñ ko filtrer bu ko filtrer bu ñëwee ba ci poumon yi poumon yi da koy da koy rejeté tamit ci sang bi donc xam nga ne amna solo mm. mu nekk lo xamantene tay ji boo doon utiliser kenkeliba bi mm. toxine yi nekk ci sa biir yaram yépp li nga xamantene mo nekk ci sa poumon bi yépp da koy dindi nañu jël kenkeliba bi diko utiliser chaque jour saay buñu xeyé ñu naan ko mais attention ñi nga xamantene na sen seen tension dafa wacc

toutes mes félicitations hein. en tout cas qu'est-ce ñu pas ko karité bi tamit baax na torop ci ñi nga xamante ne moom la ñuy utiliser rawatina ci sedda bi saxa bi yàlla bañ def naanaa sax matinaal bi ba naan ko noonu rek am na ay xorom polle mm-hmm. ah, Adama noo ko gisee est-ce que ah, waa père est-ce que nañ naan ay kinkiliba croissant lañu ndékkee askan wi kañ nañu bàyyi ñun ñu ndékkee kinkiliba nañu bàyyi ñun ñuy naan saxew di naan naanaa mais ñoom nañ leen bàyyi ñoom ñuy ndékkee li nga xam ay affaire yooyu mbay seet mbay seet maa la euh, gën a bokk ci askan bi

mujjee moom toog di ko wax mu nekk loo xamante ne tey da koy partagé ak askan bi le monde entier donc nañuy gën a bàyyi xel ci suñu li nga xamante ne yàlla may nañu ko. muy kon moom ku ci dugg mu dox de. rétablissement <laughs> de ouf mooy mu ne ma bàyyi la da nga pàgg toog sa nate de ouf ah. xëy moom ba ma xew ci ci ci ci <laughs> <laughs> euh, Adama Fall nekk tamit responsable politique fii nga xam ne mooy Médina Médina ku ko wax wax Bamba Fall

alal jooju ay leeral mu jóge ci moom accusé wuñu ne dañuy laaj ay leeral mm. te leeral yooyu moom moo ñu ko war a mun a leeral mooy 500 millions yi ba ko jotee daf ko def ci poosam wala ko def ci compte compte bi ak beneen mbir kër gi kër kër gi mu jëndee 75 millions centenaire mm. dafa ne woon ni këru mairie bi la mais est-ce que kër gi turam moo ci nekk wala turu mairie bi moo ci nekk ak pavage bi ban société moo gagné marché pavage bi ñaata la ko gagné naka la société yooyu def ba gagné marché bi parce que gis nañ ni sooy def marché pavage da def appel d'offre n'est-ce mais moom moo toog ci benn télé ne amul appel d'offre donc entente directement am diggante moom ak société bi gagné bi donc dafay am solo ñun citoyens yi ñu xam naka naka la ñuy suñu li chantier yi ñuy defar Médina te ñuy tàccu nag te mm-hmm. ñuy tàccu di applaudir par rapport à ces la mais ñu xam naka lañ ko joxe puisque Médina ñun dañu bëgg xam donc dañuy interpeller le maire Bamba Fall pour sincèrement mu leeral ñu

dama dama bëggoon rek. non waxtu l'utile à l'agréable. moom sportif la. Euh, le PSG parce que le PSG dafay joxe don de sang demain. au niveau de centre dafa am solo centre de transfusion sanguine. bu nekk <laughs> bu nekk euh, fii donc ñuy ñaan rek euh, nga lancer appel ñëpp ñëw participer ci don de sang boobu pour ñu jox ko malade yi nga xam ni dina ko def via www point inter. sport point merci. voilà Adama yow dootoo doon ñu la invité. <laughs> voilà merci Léna. Euh, di jaajëfal ñëpp ñi nga xamni tay di mom lañu bokkal euh, plateau bi euh, di wax tamit ni je suis vraiment très content ak intérêt bi nga xamni DTV amna ko par rapport à ce travail un travail journalistique un travail aussi que tout journaliste peut faire mm-hmm parce qu'il suffit d'avoir euh, l'engagement et l'abnégation, de vouloir montrer certaines choses, des fléaux qui sont réunis, qui sont Donc, merci à DTV, d'y avoir euh, Falrek Nico, dans le sang, nous sommes parce que nous sommes. Euh, euh, aux supporters du Paris Saint-Germain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein. merci beaucoup à Adam Fall, notre invité du jour. Merci beaucoup aussi à Nathalie. Merci beaucoup à Maïsen, notre international. Pour plus d'informations, www.intersport.com. Merci beaucoup à la sublissime Koura Bokoum et la ravissante Memouna. Nous vous souhaitons un excellent week-end.